mooy bëgg a fësal ni su ma ànd ci wàllu politique ak suma xarit ministre Thierno Alassane Sall jeex na wante boobu décision nag maa ngi ko jël ci daje boo xamante ni am naa ko ak moom ànd ci ak suma xel te teg ko ci ñeenti fànn bi ci jiitu mooy mënuñu nekk ci benn kuréel nga ŋàññi ni muy doxee ni ki ko jiite ni mu koy doxalee rafetul wante ba noppi yooyu doxalin ngay ŋàññi nga jël ko di ko teg ci ñenn ñoo xamante ni ñoom dañu la jege te tegoo ko fenn lu dul ci ndax da nga njort ni dañoo am ay ambition bi ci topp mooy nit mënul wéy di ànd ak koo xamante ni nangootul dégg benn xeetu critique wax boo wax bu uute ak la mu xalaat mu am ci ñaari xel ñaaw ceew yow ba noppi manque ci yow confiance rax ci dolli nangootul di déglu lu dul ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkkal ci ay noppam ay wax yu ko neex loolu nag méngoowul ak ak benn ci ponk yi nga xamante ni moo gën a tax ñu naan démocratie yi ci des nag man dama préféré ma noppi ko ndaxte dama gëm ni nit loo am am lu la metti ak lu ñu la teg teg teg lu metti su wax mënta ñàkk soo demee bay wax war nga am loo xool war nga am loo seet wante ma bëgg tamit xam le ni ni parti bii nga xamante ni mooy APR xamante ni bokk naa ci ñi ko njëkk taxawal fii cees pour jàppale président Macky Sall ba mu àgg fi mu àgg ma bokk tamit ci ñi ko soqe ma bokk tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko suqat fii cees ba mu ogg tey fi mu àgg bépp taxawa bépp activité boo xamante ni maa ngi ko ci doon def mën naan taxawal naa ko léegi nag dinaa jël sama temps ma xalaat ndax boo jëlee yoon ngay dem te xamatoo foo dem di nga taxaw nga xalaat nga xool ndax yoon bi nga jël ndax war nga ko wëyal wala ndax war nga jël beneen yoon maa ngi leen di gërëm di leen sant je voudrais officialiser ma décision de mettre un terme à mon compagnonnage politique avec mon ami, Monsieur le ministre Thierno Alassane Sall. Cette regrettable décision, prise en toute lucidité lors de mon entrevue avec lui, s'inscrit en quatre dimensions. Mais la décence m'oblige à taire les deux. Il est incompréhensible de faire certains reproches au président de la l'APR dans la gestion du parti et appliquer les mêmes pratiques à certains de ses compagnons parce que simplement il serait ambitieux. Il est ensuite inadmissible de continuer de cheminer avec quelqu'un qui n'admet plus aucune forme de critique, qui doute et manque de confiance envers tout ce qui exprime un avis contraire à ce qu'il pense et ne veut entendre que des laudateurs. Et cela ne rime pas avec l'un des principes qui fondent la démocratie. Et je voudrais également vous informer de ma décision de geler toutes mes activités politiques au niveau de l'APR, que j'ai adhéré volontairement en septembre 2009 pour porter au pouvoir le président Macky Sall. Je prendrai ainsi le temps de réfléchir sur mon avenir politique, car à vrai dire, je ne sais pas à quel saint me vouer. Je vous remercie de votre aimable attention.